أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi noo ngi ànd ak yéen ba tey ci téere borom bi tabaraka wa taala ñu toll ba tey ci suura al araf bi iznillahi tabaraka wa taala tey ñu war a jël benn aaya muy aaya 32 ñu war cee jël ñaari njàngit ñaari bind loolu ba ca jiitu mooy al inkaar ashadid ala man yuharrimu ma ahalla allah min at-tayyibat mu ne tey tomb bi gën a rëy li tax ñu yemale ko ci benn aaya mooy njàngin yi ci nekk ak déggin yi ci nekk ak leeral giñ ci bëgg a leeral sunu borom subhanahu wa taala ci aaya bi dafay weddi weddi bu tar bu metti bu dëgër ci ñi nga xam ne ñàkk a dégg diine moo tax ñu jóg di araamal lu yàlla daganal ci jaamam yi te jamono jooju ñoo ñu jóg di araamal loolu wala ñu koy tere mbir yooyu dafa bokk ci tayyibaat yu teey te dagan sunu yonente alayhi salaatu wassalaam wax na ci hadis boo xam ne al imaamu nasaa'i génne na ko mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min gayri maxiila wala sharaf fa inna allaha yuhibbu an yara nicmatahu ala abdi hadis bi ma ngi ca Buxaari wa qaala buxaariyu al imam buxaari moo wax lii hadis boobu mu ngi ci nisaa yi wa qaala al buxaari imam buxaari nee na jële ko ci ibnu abbas mu ne kul ma shita walbas ma shita hadis bu njëkk bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na lekk leen naan leen solu leen saraxe leen lekk leen naan leen solu leen saraxe leen waaye ñett ñeenti yii yëpp bu ngeen koy def bu leen ci boole ngistal bu leen wonewu lekk leen bu leen ci wonewu naan leen bu leen ci wonewu solu leen bu leen ci wonewu saraxe leen bu leen ci wonewu waaye yemul ci bu leen ci wane waaye mu ne bu leen yàq lekk leen te bu leen yàq naan leen te bu leen yàq solu leen te bu leen yàq saraxe leen te bu leen yàq mu ne ndax yàlla bëgg naa gis xéewal yu mu xéewalal jaamam yàlla gis ne jaam bi mu ngi ciy lekk jaam bi mu ngi ciy naan jaam bi mu ngi ciy solu jaam bi mu ngi ciy saraxe yàlla dafa bëgg gis dafa bëgg a gis xéewal yi mu la jagleel mu gis mu nekk ci yow kon sunu bindu tey bindu bu am importance la ndax ñaar la ëmb dafa am ñoo xam ne dañoo jàpp ne kenn warul lekk kenn warul naan kenn warul solu egguma ci sarax léeg-léeg nga gis sax kenn ku ne man duma sol nangam wala duma lekk nangam wala duma naan nangam loolu bu fekkoon ne yow waroo ko def kon yàlla araamal ko ci yow wala yenn saa yi nga gis koo xam ne dafa ngotta ngotta ngotta ngott ngott ba loxo bi dagg ci ci mbagg yi surtout nag lu gën a doy waar ci muy ñuy dund sunna démb lu doy waar daf ñoo dab dañ jóge fii dem pour jiite ji du ma nettali sama bos kon day graaw basu basu ki ma dab ci yoon bi laay nettali man dama yóbboon oto ma luye woon oto yóbbu ko du ma wax sama bos ma ñëw ba sebi xutaan ma fekk benn oustaz boo xam ne Pikine lañ ko jëlee mu jiite ji sebi xutaan juma ma gis ko muy traversé tali bi ma ni taxi bi ma yoroon droitel mu droite ma woo ko mu ñëw dugg bu mu duggee rek mu ne ahlu sunna yi ñoo nay ma ne ah lu xew fekk moom waxtaan na fekk na man waxtaan naa ki ma doon waxtaanal chauffeur bi ba pare sunu oto maanaam moom li mu bëgg a wax man loola lool moom li muy wax ñun loo waxtaan nañ ko ba yegg Sébikotane pour ba Sébikotane ci loolu lañ doon wax mu dugg rek ne xoolal ñu jëlee ma Pikine ba Sébikotane may ñibbi ñu may jox téeméer paas pour ma dugg ci tataay ñibbi këli xel nangu na ko heureusement ma ne ko gëmal santal yàlla ñoom oto lañ la xañ yàlla indil la oto bu la jël si ba yóbbu la sa buntu kër ma ne ko yàlla moo nu programme pour ñu ñu fekk la fi maa loolu man diine la ñun jàpp nañ ne diine kenn waru cee joxe wala kenn waru cee lekk mu nekk nii boo gërigoon benn mbokk day lekk ginaar rek guddi léegi nga attaqué ko kii gëmul yàlla xoola muy lekk ginaar suñu benn mbokk dafa génn xuruj jamaatu tabliir mu ànd ak ñoom mu dem ñu julli timis ba pare ñuy suuraa lan lañ war a reeree nga ñooñu ndeysaan ñoom yi diisoo asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk lan nga gis ne lañ war a reere non yaa xii nañ jënd mburu rek ak gerte caaf kële mu ne non nañ jënd fonde kële mu ne non nañ jënd cere rek def ci tuuti meew ñu ne ko mbokk mu ne nañ jënd ginaar gaay na subhanallah ginaar daa araam reere ah waaw ñu ne fan lañ ko teg fan lañ teg ne ñun waru suñu yàlla mayee waruñu lekk waruñu naan waruñu solu fuñ ko teg ba sax léegi xale jigéen yi wane ibaadu ii du ma see ibaadu lu tax ñoo nay fu ngeen teg loolu di yërëm tër yërëm tëlu ci société bi ku la gis di la yërëm doo sangu doo diw soldat lu duus di doxantoog moom ci mbedd yi am na daal yoo xam ne kenn warul xëy ak moom kër ga lañ ko war a bàyyi ci biir duus bi mais diina moo nu ko san da ngay ñëw léegi ci aaya bi yonent bi dafa dajeeg benn waaye mu ngi ñëkk mu ngi lëndëm mu ne ko maali araka abu san lu tax nga ñëkk ni ne inni saim damaa woor yonent bi ne ko koor du mbugal di nga war a leer set xeeñ rafet yonent alayhi salaam mooy njàngal yéen njàngal ñu ne yonent bi fu mu nekkoon socc mu ngi ci parfum mu ngi ci danaan tusngalu danaan diw danaan peñow ah loolu loo ci dégg allahu akbar ku rafet la woon soo gisee kanam gi leer ba ñu weex waaw noonu la mais ñun dégg ñu sunna yooyu te ñun nee nañ ñoo bëgg a roy yonent bi koo gis mu ngi triste moo ngi weex moo ngi lëndëm moo ngi fur fuñ teg loolu ba tax soo soo kenn ci ñun bu génnee dem sax dañ naan ñu waa ki ki la bokk xool ko nii la ñuy def nii nii pourquoi loolu ban diine la dañoo laaj benn borom xam-xam bu mag ñu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan la doon sol mu ne li Abu Sufyaan doon sol li Abu Jahlin doon sol la doon sol yaay jaaxle waaw yow Abu Jahl di yéeféer yonent bi di yonent yàlla yónni ko nga ñu laaj la yoonam mu ne dama laa bëgg a wax yonent bi bi ko yàlla yónnee changé wul yére yére yow a màkka doon sol la sol changé wul yére comportement bi moo changé parce que léegi missionnaire la bokkatul ak ñoom mission mais yére yi changé wul mais xoolal ñun di deedeelu di rey suñu bopp kenn ci ñu nanguwul dund te yonent bi ne la lekk leen naan leen solu leen saraxe leen beneen hadis bi hadis ibnu abbas ba pare balaa hadis ibnu abbas hadisu nisaa yi mu ne yàlla dafa bëgg su joxee kenn ci yéen xéewal mu gis xéewal boobu alquran ne wa amma bi ni'mati rabbik fa hadis oh il faut ñu dégg diine diine du toroxlu diine du nga war a am kër gu rafet nga war a am lal bu rafet nga war a am matériel yu rafet nga war a tëdd fu fu baax nga dem wut benn benn benn benn spantare nga def fa benn mat la yaa axi tëdd ci lal daa araam yaa axi man du ma lekk loolu ban ban ku la ko sant ku la ko lekk ku la ko sant ñu bëri dañu yaakaar ne dëddu àdduna mooy nga bañ a lekk nga bañ a naan mooy ngay sol ay pajaas ak waddoo saaku saaku soble waddoo saaku soble Now could you talk and then I have love and then do you love?
ah mbokk yi ñu bëri si ñun loolu lañ foog fekk c'est pas ça il faut ñu góorgóorlu xam sunu diine lum ñu sant yàlla dafa bëgg kenn ci ñun bu ko yàlla mayee xéewal mu gis xéewal googu yàlla gis xéewal gi mu nekk ci moom fu mu dem ñu xam ne kii yàlla may na ko xéewal kii tane na waxuñu nga ëppal nga war a jënd oto par exemple sa sa sa sa personnalité loolu la sa am am may na la ko Ouh, yaa axi oto du ma ko jënd lu tax pourquoi nga war a am kër yaa axi man du ma jënd kër kër xaju fi léegi ma dee daat léegi boo dee say mbokk say doom dañuy torox dañu nekk di liwee ñu leen di génne te yow yaa leen ko tey kon jëndal tabaxal leen suñu la gisoo sax ëllëg duñ fay location oui am nga ko taal ko ci kër gi balaa xale yi dem di ko wuti feneen leneen di leen ci fekk loolu mooy diine yàlla daf la ko may ba pare mu yonent bi ne la yàlla bëgg na lim la may mu gis mu jeex ci yow nga dund ko hadisu ibnu abbas mu ne lekk leen naan leen waaye bu leen ëppal bu leen yàq kon loolu il faut ñu xam ko yàlla dafa weddi ñooñu beneen njàngil mooy yi nga xam ne ay xéewal la ci ay lekk ak naan ak yi ñuy taarloo ci ay yére loolu jullit ñi ñoo ko moom fii ci àdduna loolu jullit ñi ñoo ci gën a yay àdduna bi ñun ñoo ci gën a yay oto yi ñoo ci gën a yay lépp lu rafet ci àdduna lépp luy lekk lépp luy solu lépp luy naan ñun ñoo ci gën a yay ñoo ko moom yow li nga moom nag boo jekkee ba ñu raxas ci sa loxo nit ñi sax dañ ko xam ci ñun ba soo ko bëggee def sax ñu ne ah ñu xanaa dooy baadu fe ne boo ne woon benn keroog dama wax benn waaye ma ne ko dama demoon sali mu ne oustaz danga demoon sali ma ne ko wéy maag sama soxna ñu àndoon sali mu ne la habla wala quwwata illa billah ma ne ko non dama ko doon bëggali ji dama bëggoon ñu dem fu calme fu wéet ñu nekk fa jaamu suñu borom waxtaan ma ne ko bul yaakaar ne damaa fay ay millions de dama fa am xarit rek ma woo ko téléphone mu ne ñëw leen gis nga c'est ça mais il faut ñu xam ne ñun ci dund bi lañ bokk ba pare yu dagan yu teey yi ñun nii ñoo ko moom ñeneen ñi moomuñu ko léegi ñun dañ ñuy jéem a dañ ñuy jéem a xatal di ñu xatal di ñu puus di ñu puus ba ñu génn ci biti taxaw fële da ngay ñëw ci xew bi sax xew bi ñu defar palaat bi ba mu rafet nga bëgg a toog ñu ne ah yow da ngay lekk nen waaye ndeke dinañ lekk nen ndeke di ngeen lekk yàpp ah xanaa ñun du ñu ay nit parce que ñun ñun ñoo daw responsabilité bi te ñun ñoo ko moom. yàlla nee na ñun ñoo ko moom ñun yàlla nee na ñun ñoo ko yay tey adduna bi bu ñu xëyoon kenn julliwul rek yàlla tukkil adduna bi ñii julli ñoo tax yàlla bàyyi fi adduna bi de. ñi jàng alxuraan ñoo tax yàlla bàyyi fi adduna bi yonent bi nee na yàlla day yónni ay malaayika wàcc leen ci suuf. ngeen ko déglu su ngeen déggee jànguñu benn baatu alxuraan rek àdduna day tukki bu malaaka yi wàccee dégg xale yi di yuuxu nit ñi di yuuxu jàkk yi tur yàlla yi yàlla bàyyi àdduna bi kon foo ñu dégg sunu diine ñu xam ne yàlla wàccewuñu pour ñu nekk ay robot yàlla wàccewuñu pour ñu nekk pour ñu nekk ay malaika baat boobu laa soxla woon moo tax dañuy lekk dañuy naan dañuy am ay soxna dañuy am ay doom malaaka yi ñoom du ñu lekk du ñu naan du ñu sëy du ñu am doom du ñu nelaw ñun nag yi dañ koy def parce que ay mbindeef lañ du ñu ay malaika abadan ay nit lañ dañuy bokk ak àdduna bi ay nit ñun ñu gëm yàlla yàlla baaxee ñu ko ñoom ñu nekk ay yéeféer tey ñoom ñu raxas suñu loxo ci àdduna bi ndax ñun ñàkk dégg gu ñu ñàkk dégg suñu diine waaw xoolal jullit yi niñ tardé ci àdduna bi amuñu dara dara jullit yi ñoo gën a alku ci àdduna lépp dañuy toog di xaar keroog benn benn benn journaliste dafa def remarque bu dangereux bu grave mu ne yéen jullit yi amu leen dara mënu leen dara mu ne du ma dem ci ay avion du ma dem ci ay fusil du ma dem ci ay bombe du ma dem ci ay arme nucléaire yu ndaw ndawaan yi ngeen di dundee laay wax te mënu leen ko defar mu ne bu njëkk bi yére yi ngeen di jullee ku koy defar yére yi ñuy sol ku koy defar ah mu ne sijaada yi ngeen di jullee sax mënu leen ko defar sijaada yii ñun mënuñu ko defar yii yii ñuy jullee suñu jàkka yi ah mu ne alxuraan bi ngeen di jàngee sax mënu leen ko defar alxuraan bi xoolal chinois yi big bi ñu génne big big bii liir alxuraan ñan ñoo ko defar ah big bii liir alxuraan bi ñan ñoo ko defar duñu ay julit big bi nga xam ne day am juróom-ñaar fukki jàngikat aaya boo teg ni mu liir ko soo bëggee mu répété ko cent fois big la ah tey xoolal julli ñi li ñuy jëriñoo ci àddina bi yëpp ci wàllu islam defaruñ ko yéeféer yoo ko defar julli ñi exploité ko jël ko portable yaa ngi ni carte mémoire yaa ngi ni ngeen def ci kaamil yu leen neex muy jàng ñen ñoo ko defar yéen a ko defar ñun ñoo ko defar avion yaa ngi nii di aju maaka ñan ñoo ko defar ci suñu wàllu diine laay wax du ma dem sax ci leneen loo xam ne ñun ñoo ko waroon defaral suñu bopp parce que ñun ñoo ko soxla mais ñeneen ñi ñoo koy defar ñun ñu doog ko jëriñoo loolu lu ko waral mooy ñàkk dégg suñu diine wolof yi nag dañuy wax ne ku ëmb sa sànqal soo gisee yéeféer yi yàpp jullit yi nii mooy jullit yi amuñ dara amuñ dara munuñ dara arme nucléaire yi ñuy wax ci àdduna bi tey est-ce que jullit ñi am nañ ko tey ngeen defee ne Palestine bu ñu amoon arme ni leen yahud yi di nappee nii di leen rey di leen massacrer guddeeg bëccëg dana nekk ñun léegi nag ci lii rek lañ bëgg a nekk suñu waxee rek ñu ne xaraam benn mbokk dafa gis sunna dem seen kër damm kudd yëpp ñu ne ko lii lan la mu ne bidaa la yonent loxo la doon lekkee est-ce que dañoo jàng fenn lekke lekke lekke loxo dafa araam lekke kudd dafa araam ah yooyu mooy suñu problème yoo xam ne tey moo ngi nii tardel jullit yi tardé tardé tardé tardé yenn saa yi nga dégg loo xam ne doo ko ñemee wax nit te jullit moo koy wax jullit mu nekk ay idée arrêté yoo xam ne kenn xamul fu ñu koy waxee te àdduna bi yàlla moom ko wàcce ñu fi wax ñu nanu dund liñ ñu tere mooy ëppal war a dépassé 1000 francs dem dépassé 10 000 loolu la sant loolu la tere ah war a dépassé 5000 dem dépassé 50 000 francs këpp mbalit ci àll bi ci lekk yi ah wala ngay puukarewu sol loo xamante ne boo génnee ñëpp taxaw di la xool loolu dañu la tere loolu rek mais li ñu wax mooy xayrul umuri awsatuha li gën ci mbir yi mooy nga digg dóomu nga bañ a ëppal nga bañ a wàcc bañ lay yërëm di la sarax benn mbokk bu góor dafa génn këram romb benn waay rek waa ji ne ko xaaral ma ñëw dugg ci këram génn armoire am génn waa léegi yëpp jox ko ko mu yenu ko ñëw da jabar ji xool lu ñu ma may jabar ji toog di jooy ne ko xamul tax ñu may la li mu ne waa doo sol waa ji dalaa yërëm man xam naa ndaw si toog di jooy jooy ñetti fan ndax ndax waa ji yëre yiñ ko may xam nga loolu gàcce la ah gis naa koo xam ne séyam dafa tas pourquoi saa yu wàccee jabar ji naan ko dama nga sangu ji mu mer ci loolu sëy ba tas ñu xeex sëy ba tas ñu ñëw wooñu nañ ko rek la ñu ñëw lan la mu ne kii su ma su ma waxoon tërëm rek musiba am kii du sangu bu wàccee mu ne ko sangu naa fi may liggéeyee ba pare mu ne dama la tàngalal ndox tegal la lépp boros saabu serviette fii sama kër la bis boo fi ñëwee da ngay sangu balaa ngay tëdd ci kaw lal bi mu ne duma sangu sangu naa ba pare loolu fuñ ko loolu ban diine la yow même boo sangu woon sax soo ñëwee ñu dafa la teraanga bi sangul est-ce que day tax nga nga tilim et puis tàngalal naa la ndox tegal naa la boros tegal naa la serviette tegal naa la saabu tegal naa la jàmpe soo bëggee sax nga ñëw ma sàng la man dama naan la kay sang ma ah oui ñàkk dégg fiq la il faut ñu góorgóorlu waaja ba ko soxnaam géddee mu dem ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di kalaamee yonente bi ba mu ko gisee rek waa ji doy waar yonente bi ne waa ji kaay duggal fii dama nga defaru waa ji sangu ba set ñu jox ko yére mu peñewu yonente bi jox ko diw mu peñewu defar bopp bi mu ne waa demal sa kër nag léegi mais dafa yëg si rek soxna si kontaan reetaan ñun nag yaakaar nañ ne kenn warul sangu kenn warul solu kenn warul kenn warul kenn warul boo waxee ñu naan yaa axi loolu yëfu àdduna la waaw yëfu àdduna parce que ci àdduna lañ nekk boo demoon àllaaxira doo ko def boo demoon àllaaxira kenn du la ne solul kenn du la ne sangul kenn du la ne diwul kenn du la ne lekkal lu baax kenn du la ne utal lu baax mbëkkante leen ci àdduna bi liggéey leen kër këri leen ni nit ñi di kër këree àdduna njëkkante la àdduna liggéey la adduniyaa daaru amal waaw dañuy dëkk ak ay nit waruñu laa joxoñ ci koñ bi non jamais da ngay bañ loolu bu la kenn joxoñ benn benn benn njaago buy fóot day fóotal benn waay benn mbokk ay yéreem xam nga lu mu wax mu ne mu ne mu ne jigéenam yi soxnaam yi yéen na ngeen wax ak seen jëkkër yi yéreem yëpp parfum la ndox mi may fóotal sax léegi day mujj nekk parfum mais c'est bon loolu loo ci dégg mooy waa ji dafa day diw day faset day xeeñ parfum aha loolu moom mooy mooy mooy mooy diine nga xoolal yonent bi saa sallam parfum da ko yitteeloon wala ba mu ne sax booy dem jàkk xeeñal xet gu neex bis boo lekkee soble wala nga leere laaj mu ne bul jege jàkk ji yonent bi mu ne la même loo garaaw garaaw garaaw àjjuma bu nekk sax bokk sangul bokk nga changé yére nga dem julli ji ñun ñu bëgg a kal diine rek ci benn xamis benn max ne ànd naa ak benn waay muy labati wa rabbil kaaba ci jàkka la nekk kaamil laa tiim ma ànd ak waa ji muy labat jabar ma dem ñu jaawale ma ak waa ji ne ma yow la ma ne kii la kenn mayuñu dara kenn mayuñu ndaw si baa ngi fi ba léegi ndaw sax léegi dafa bëgg a dof am ba léegi amul jëkkër te léegi loolu mën na fukki at ak juróom waaw loolu loolu nuñ koy defee nan ngay labatijee dem kër nit di jëm ay kër nit mu leer na ne ay nit ngay ñaani seen doom nga wàcc fi nga doon liggéeyee dàll yi nga sol ak tëni bi nga farax faraxi naan da ngay labati ji loolu est-ce que ku am xel dina ko def non il faut ñu jàngaat suñu diine ñu xam ne lii yàlla wàcce ci àddina bi ñun ñoo ci gën a yey ndax ñun ñooy ay jullit mais tey kenn dina laaj lan moo tax yéen ngeen nekk ay jullit ba pare amu leen dara ngeen tardé ngeen ne ngeen yéeféer yi ñoo moom adduna bi yéeféer yi ñoo gën a taaru ay dëkk yéeféer yi ñoo yéeféer yi parce que parce que yéeféer yi ñoo nangoo jàng ñoo nangoo góorgóorlu c'est parce que yéeféer yi ñoo def seen bopp ay nit parce que tey adduna bi lu fi gën a garaaw mooy jàng ñun jàng lañ gën a sànni ci xaj kenn du jàng waaw koo wax rek mu ne nañ lijjanti alal business taf taf dóor mu daanu lijjanti ñun sax bañ nañ ko ba dañ naan alal kenn du ko dañ koy ñun loolu mooy suñu polo suñu philosophie loolu musiba la ay jullit dañu war a am conscience ay jullit dañ war a mbëkkante ci àddina bi parce que yàlla terewu leen ko li ñu yàlla tere leer na dong ci ay texte leer na naññ naññ yére luñ ñu ci tere mooy lan soit takkaay luñ ñu ci tere mooy lan or mais leneen la may nañ ñu ko te loolu ñan lañ ko tere ci ñun sunuy góor daganal ko suñu jigéen mais tey kenn ci ñun bu la sa jabar jabar waxoon mais ma jënd jasneer rek haram mbokk mbokk ragalal yàlla mbokk ragalal yàlla jasneer subhanallah est ce que yaay sa da doon sol jasneer non vraiment c'est difficile ba ba possible léegi yow fan la njàng ne jasneer sol ko da haram ana aaya bi ana hadis bi hmm? ana mu inna allaha jamilun yuhibbul jamala fata fata jamalu yàlla dafa rafet bëgg na lu rafet mu ne rafet leen allahu akbar inna allaha jamil yàlla dafa rafet ba pare yuhibbul jamala bëgg na lu rafet fata jamalu mu ne rafet leen waaw saxaaba yi gars yi dañoo rafetoon leer nañ soo leen gisee ñu xonq cur seen jëy yi ñuul kokk ñu ñu amaamamu seen amaama yi moo tax yéefar yi bu ñu leen gisee dañuy tiit ndax am na jëmm jooy gisee nit nga xam ne kii bàyyiwul boppam même dox bu ñu doon dox sax gaa yi dañuy xam ne ñii ay góor lañ waaye fi am na ci ñoo xam ne ñun ci ñun bu ñuy dox dañuy direeku dañuy direeku mel ni ñu àdduna sàppi dëngal seen bopp yi la hawla wala quwwata illa billah fu ñu tourné ñu ne ki ki- ki ki lu ko jot même bu ñuy nuyu nit ñi sax duñu nuyu nuyu bu dëgg salaamaaleykum doo asalaamaaleykum wa rahmatullah nga jàpp waa ji loxo bi këj bu la jàppee nga jàpp ko mu xam ne yow góor dëgg nga mais di comme ça loolu daal vraiment doy na waar ci ñun daal kon nañu góorgóorlu bu baax mbokk yi aaya bii la ñuy jël tey euh, ñetti aaya la waroon nekk waaye importance su aaya bi moo tax ma gis ne war nañ mën a jël benn aaya bi diggante timis ak gee sunu borom subhanahu wa taala mu ne qul man harrama zinata allahi allati axraja li ibadihi wattayibati min arrizq mu ne qul hiya lilladina amanu fi lxayati dunya xaalisatan yawma alqiyama zalika nuf kazalika nufassilu alayati li qawmin yaclamuun qul waxal yow Muhammad leeralal lii waxal ak gaañi ne leen man ana kan xarama mooy araamal zinatallah taarlu yàlla at tahrim al manu kan mooy tere kan mooy taxaw ci digg dëkk bi daan ne jullit yi bu leen def lii kan la ko kan la war a nekk yàlla kese la war a nekk ak ak yonentam léegi nag yàlla nee na moom waxu ko léegi nag su ko yàlla waxul ana kan ci nit ñi moom moo war a taxaw di tere jaami yàlla yi lu leen yàlla may qul waxal ci kaw ne ko ñëpp dégg man ana kan xarama mooy araamal zinatallah mu ne zina mooy maa ta maa yatazayyanu bihi min siyaabi wa gayriha mooy li ñuy taarloo ci ay yére lu ñuy sol dàll lu ñuy takk ak yu demee noonu lu ñuy dëkk lu ñuy war ah kan mooy taxaw yàlla daganal lii ci jaam ñi benn waaye ñëw naan non c'est que mbokk bul def loolu dañ dem Casamance daawaataati jékk daawaataati jékk Sédhiou benn mbokk di takk soxna benn oustaz bu ma àndaloon bu tudd Oumar Sall ñu bëri xam nañ ko souvent ñooy ànd ak oustaz Diouf Ahmad Demba Sow oustaz moo doon def waxtaan bi Oumar Sall ma présidé ko mooy mariage la woon mariage lan mooy tax sunu sëy yi neex lan la bi mu defee ba pare ma jël micro bi di def taaliq commentaire ci texte yi mu doon wax ma ne ñun jullit ñi dañoo jàng diine def yonent bi royukaay te loolu la ñu sant waaye dëgg dégguñu li mu yonent bi li mu doon dund dégguñu ko surtout sëy ñu ëpp ci ñun dégguñu yonent bi li mu doon dund gaa yi ne teg ma ne yonent alayhi salaatu wasalaam sangoo ndoona ak soxnaam sangu ah ci benn siwo ci benn këll yonent bi nekk côté bi ndaw si nekk côté bi ñoom ñaar ñuy sangu di xëcc ndox mi ba ndaw si ne yonent yaa yaa ngi jeexal ndox mi ñuy xëccoo ndox mi ma ne yonent bi ànd na ak soxnaam ci mbedd ñuy daw du dëgg am na wala amul ñu paree rek benn waaye jël micro bi mu ne gis nga yow yow li nga fi bëgg a indi yow da nga yow da nga bëgg a indi fii fitna quoi fitna nga bëgg a indi yow ma ne ko man ban fitna laa bëgg a indi yonent moo ànd ak yaay Aysa ci mbedd mi ñu daw bu njëkk ba kan moo rawoon deuxième bi yonent moo ko raw parce que boobu Aysa commencé na diis yonent bi raw ko yonent bi ne ko bii mooy bële fayu naa kon ñaata yoon lañ ko def ma ni ko tey boo gisoon benn imam wala benn kilifa ci kilifa yi mu sunna mu sol blouson man sax yenn saay rek yenn saay di may génn sama kër jaar corniche jëm li ma amul ay wiiri yenn saay ma romb kenn mun a di xool ndax man la wala du man di la di la séentu da ngay xool kii imam loola oustaz la kii kan la léegi ñun waruñu entraîné waruñu defar suñu yaram dañuy toog rek feebar di lekk di feebar rek di jóg di naan di faju ñaata yoon la ñuy wax ne ñu tàggat suñu yaram ci diine ñaata ñaata ñaata waa ji ne ma yow fitna nga fi bëgg a indi ah naka kilifa daw ci ah ma ne ko yow mi yaa bëgg a indi fitna yow yow kay yaa déggul diine mariage boobu dafa tas ndax xeex la woon waa ji ne daf may dóor jóg taxaw song ma gars yi jàpp ko am na ñu ma àndaloon lim naa seen tur kay na ngeen leen moo ngeen laaj la mais lan mooy diine léegi yow mel noonu ñu xatal yu mel noonu ñu xatal tey ku la gisoon yow mii rek nga dem marché day dem yóbbu ko ci rajo bi kii dafa ragal jabaram maa ko gis marché wala benn waaye ñoo fekk la sa kër ngay raxas bool yi wala ngay raxas toilette bi wala ngay laab xale yi ñun ay ñun ay lan la ñun ay jullit lañ loolu la ñu sant te loolu la yonent bi doon def dégg ngeen ñu ne yonent bi soq na wala dégg ngeen ñu ne yonent bi fóot na wala dégg ngeen ñu ne yonent bi ñaw na wala ah waaw ñun ñi gi ñun ñi fii tey kan mooy def loolu ku fi sa jabar waxoon lalal ma lal bi nga yow gis nga yow yow soo ma moytuwul lu ci rek ku ciy tëdd ku ciy tëdd yow mi yaa ciy tëdd su fa nekkuloon ku koy defal boppam bi nga amagulee jabar koo doon def waaw léegi nag bi nga amee sax dafa war a continuer waaw loolu mooy diine mooy yërmande diine war a yërëm sa soxna mu yërëm la looloo tax aaya bi ne wa jaala baynakum gis nga ma wadda wa rahma mais ndaw si am doom xale baa ngay jooy ma nga teg cin bi ma ngay bàcc kee ngay yuux mu bëgg a nekk ci yëpp yow nga tëdd fële nekk ci télé bi di zappe léegi Messi dugal de xam naa léegi ñu égaliser nga bàyyi ko fële muy togg reer kee nga yuuxu fële lëla ma nga fële pareegut yow nga toog fi di seetaan télé nga ma ne loolu diine la ba ban diine moo ko santaane bu reer bi guddee nga yuux tey boo ñëwoon ëpp fourneau bi sax wala nga taxaw boog di jeqi yëf yi dina gaaw moom mi ngi fee mi ngi def lee yow defal lee mais ci ñun suñu xat dégg xatal diine ak ñàkk a dégg diine gu ñu nekkee kenn xamul fu ñu koy waxee kon sunu borom subhanahu wa taala lim ñu sant mooy amul kenn ku am sañ-sañ am droit taxaw sunu kanam naan ñu nangam bi yàlla da koo araamal te indil ñu aaya indil lu ñu benn dalil kon luñ ciy dégg dañoo war a lekk dañoo war a naan dañoo war a solu dañoo war a saraxe ci li ñu am waaye ñu tënk ko ci règle yi nga xam ne fa la ko islam tëg ñu bañ a yàq ñu bañ a ngistal ñu bañ a wanewu sunu borom subhanahu wa taala mu ne ziina boobu allati mooy la nga xam ne axaraja yàlla génne na ko li ibaadihi ñeel jaamam ñi kon ñan ñoo ko moom si yàlla waxoon sax li naas ba tey ñun dugg nañ ci waaye lii yàlla daf ñu ko jagleel direct yàlla ne yéen a ko moom li ibaadihi yamu ci mu ne wa tayibaat min ar rizq ak yi teey te dagan ci ay wërsëg ci ay xéewal mu ne jamu tayib wa huwa alxalaal mooy lépp lu dagan lépp luñ ne lii dagan na ah ginaar dagan na xar nag ah dagan na nag giléem waaw jeex na solu tamit yére lan lañ ñu wax moo araam soit kon leneen lépp boo amee nag la ñu wax boo amee dama nga jënd nga solu oto marque xaalis boo am bu fekkee am nga am nga loo xam ne mën nga ko jëndee gis nga ko soxla nga ko nga jënd jeex na nga bañ a yàq nga bañ a deedeelu nga bañ a ŋoot nga bañ a nay nga lekk solu saraxe ah bañ a yàq loolu lañ ñu sant ci lépp loo xam ne yàlla génneel na ko jaamam yi ci ay mbir yu teey wa tayibaat min ar rizq ci li nga xam ne yàlla moo ñu ko wërsëgal ar rizq gis nga yàlla lu mu la wax mu ne bul yem foofu sax qul na nga leen wax ne hiya loolu lillazina amanu ñi gëm yàlla sax ñoo ko moom fil hayata dunya ci dundu àdduna ñooy na ko moom lii kay leer na qul hiya lillazina amanu fan fil axira balaa ngay def alaxira yàlla di dugal ci aljanna yooyu nga xam ne la fa nekk amul fii yàlla nee na fii ngay njëkk xéewlu ba pare fil hayati dunya ci dundu àdduna bi waaw li nit ñi di sol sa dëkkandoo yi sa mbokk yi li ñuy sol solu ci bul dem fenn ñu la yërëm jamais gis nga yenn saa yi bu nit ñi demee ci ay xew ñu bëri ñu ñaan wàcc leen sëy si ñan la ñi so ñi sol yenn col yi doy waar yi ak eh bu leen yegg si fii taxawal fële eh eh eh taxawal yow mu ñëw lu tax parce que gars yi sa yére rek la ñuy xool ak sa koppara eh eh sa waay kaay yow taxawal lii mais yenn saa yi nga gis koo xam ne tekkiwul dara xamul dara mënul tus ñëw ak ngandi grand bu ñu indi ko ba ci kanam ne ko toogal fii te xamul dara mais la ma doon yóbbu ko fa même ci julli saxam isa nga gis hafizu quran boo xam ne li mu sol day yegg si ñu tafee benn paa ñoom xamul dara xamul sax julli gi ñaata rakk la ak grand bu ñu ne ko jàllal jàllal parce que grand bu bi dong la ñuy xool ak wala yére bi wala mbaxne bi fekk xamul dara dara xalif xar fa fanaanul ci bopp bi am naa gan sunu kër gan gan bu jóge dëkk ñëw timis jot ma yegg si boobu xale bu ndaw laa maa ngi jàng alfala ma yegg si sama yaay mu ne kii wax fu mu jógee kii luñ bokk nangam ak nangam gan la timis jot ma lal si yaada bi ne ko bismillah timis googu dama koy julliwaat man nekkuma fa sax di ko wax man damaa xëj sama siyaada dugg fële julli ma pare ma ne sama yaay waa nga ne yow kii salal la ma ne ko kii mënu julli de ñaar rakk la julli timis te daa jaxase saar yi te kilifa goo xam ne ñaar rakk ma pare man xëj sama siyaada parce que gëmuma ne dafa juum parce que ni mu doon jàngee laa xam ne kii munul ak ni mu doon jullee laa xam ne kii daa mun munu ko musu ko def dafa ñëw fii tey julli jot mu gis kër gi yëpp la julli mu am mu am problème. dafa ne loolu loolu mu ko kon nit ñi yenn saa yi sax ñu jël koo xam ne ci ci xamul dara mais ni mu ñëwee rek gars yi daal ne ko bismillah exil nee nañ benn waaye dafa gaañu ñu yó ñu yónnee benn sëriñ yónni doomam mu ñëw egsi ak garaamu bu weeg. xoolal ñoom bu ñuy ñëw dañuy sol ay grand mbubb yoo xam dañ koy gome ba grand mbubb bi du lemu grand mbubb fu ñu dugg daan karaaf karaaf karaaf karaaf loolu lay def mu yegg si fekk néew bi ñu teg ko ñu ne ki ñu doon xaar yegg si na mu ñëw taxaw ne defar leen sàppe yi gars yi mu ne li xam leen benn pa wiiri ci ginnaaw ñu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko summa yi ci risaala mu ne mu ne yaa ci mujj taxaw fa xam nga risaala dañuy wax kuy jullee néew nooy mel risaala yéen ñi jàng risaala su limee su waxee benn danaan summa kii moo ci tegu summa kii moo ci tegu summa kii moo ci tegu summa kii moo ci tegu daanaka fëy la ba mu fees day dem di dem di dem ba ne borom yére bu rafet kooku nag daanaka ca fin bala ndax summa ya moo tax paa bi ñëw ne ko summa ya ca risaala mu naa mu ne ko yaa ci mujje taxawal fa la ci ginnaaw ndax yooyu borom yére bu rafet mu ngoog kon il faut ñu dégg suñu diine xam ne àdduna bi ñun ñoo ko moom pour ñun la bul génn mukk sa kër nit ñi gis la di la yërëm wala di la sarax wala wala wala déedéet génnal ni yonent bi daan génnee génnal di nes nes yi génnal leer génnal génnal génnal génnal ci sa dund tamit yaa ak sa waa kër bul ngottu bul nay bul dem ba waa kër gi dafa ne da nga leen tëj ci kaso fonde midi sombi guddi mukk bul daf loolu mukk la kenn yërëm pourquoi nit ñaa ngi ni di liggéey dama nga liggéey loo am bokkook sa njaboot bul yàq tamit li nga am gérer ko ça loolu mooy diine loolu la nit ñi di wegee loolu la nit ñi di ormaalee loolu la nit ñi di nawee te loolu la ñu sunu diine sant islam xam ngeen ne dafa bañ dafa bañ yàq dafa bañ yalwaan ah islam dafa bañ yalwaan wala ah bañ nañ ko sax ba yàlla nee na bu leen jël seen loxo yi def ko yu ñu dagg jàng ngeen sax ñu ne yadul uliya xayrun min yadi sufla kon jullit noonu la war a mel dégg diineem góorgóorlu ci àddunaam ba nga xam ne dëgg dëgg dëgg li ko yàlla soxlaawee dina am ci moom sunu borom mu ne ñu lii nga xam ne man yàlla maa leen ko génneel yéen yéen a ko moom rawatina yéen ñi gëm yàlla fii ci àdduna yéen a ko moom mu ne bu ñu demee àllaaxira xaalisatan yawmal qiyaama foofu moom sax yéeféer duñ ci bokk yéen kesa la la fay neex la fay taraanga la fay xéewal yéen jullit yi yéen a ko moom yéeféer yi sax bokkuñu ci amaa kon fii ci àdduna ñu nag ñoom ñoo ko bokk kon dañ ko war a njëkkante waruñu ko bàyyi ak ñoom toog di leen xool wala tey nag loolu lañ def te pourtant yàlla lu ñu wax mooy àdduna ñun ñoo ko moom alaxira kese nag la yokk yàlla di jagleel jox ñu ko foofu parce que lu tax yéeféer yi duñ dugg àjjana safara lañ jëm moo tax xéewal yi duñ ko fekkee moo tax mu nekk xaalisa lil muminin lu tax parce que yéeféer yi duñ dugg àjjana te àjjana la xéewal yi nekk àjjana la taraanga yi nekk yàlla bu ñuy misaal aljanna rek ni mu ko defaree mu ne pour ñun la loolu kay moo tax ngeen war a xam ne yàlla xañuñu taraanga yàlla xañuñu lu baax waaye luñ ñu ci sant mooy ñu digg doomu ñu digg doomu ndax ñun ñooy umma wasat ñun ñooy xeet wi nga xam ne ci digg bi la nekk wa kazalika jaalnaakum ummatan wasato xeet bu digg doomu lañ ñu def lépp dañoo war a nekk ci digg bi bu ñu ëppal bu ñu suufee ah yor lal di tëdd ci suuf mat la ñu wax nga naan yii lal lal daa araam hmm, tëddal ci kaw lal bi jamono sedd la utal mbaaj waaye boo ne kenn yonent bi daal sangoo mbaaj di nga dee da ngaa war a yeewu fajar sangu tàngal ndox tàngalal bul sangoo ndox bu sedd bi gaz baa ngi nii wala matt maa ngi wala këriñ gaa ngi nii bu- bul dee deelu demal nga sangoo ndox bu tàng bi tàngalal yeewul teel 4 heures nga teg ndox balaa ñuy noddu asalaatu xayru mina nawmi ndox mi dina tàng nga sangu defaru naafile li ngay naafile boo defuloon safaak witir nga def nga génn dem jàkk jeex na mais di deedeelu ah déedéet kon gaz bi day gaaw a jeex nga dugg ci ndox mu sedd bi ñetti fan nga commencé crampe feebar fi dee di nga jënd ordonnance boo xamante ne moo raw jënd gaz lu leer laa leen di wax ku fi sangu ndox mu sedd ñetti weer di nga jënd ordonnance boo xamante ne wallahi moo raw jënd gaz parce que yaa ko indil sa bopp waaw foo ñu bàyyi xel diine sunu borom subhanahu wa taala mu ne ñu wa kazalika naka noonu nii ma leen leerale lii ma wax yonent bi na leen ko wax bu kenn araamal taaru yàlla bi mu génneel jaamam yi ak ay wërsëgam yi ñu war a lekk di ko dunde ñoom ñoo ko moom fii ci àdduna ëllëg yowmal qiyaam ñoom ndong laa ko jagleel nii ma leen ko leerale ba mu leer nu fassilu laay leera al ayat ay li qawmin ñeel ay nit yoo xam ne yaalamuun dañoo jàng dañoo xam gis nga tax buñ jàngul musiba am na li qawmin yaalamuun nit ñoo xam ne dañoo jàng am xam-xam nekk ay intellectuel lu nekk ñu teg ko ci place am ñu bañ a nekk ay nit ñoo xam ne dañuy làmbatu te yéeféer yi loolu lañ xam moo tax ñu dem jàng moo tax bépp xéewal ñoom ñu yor ko ñun dañuy toog rek di xaar di commande rek ata yére dañuy commande lépp yahudi ak nasaraan yi ñoo koy defar ba ci siyaada yi ñuy jullee laa wax tout ñoom ñoo koy defar lépp ñooy defar parfum yi ñooy defar lépp moo tax léeg-léeg ci biir yi ñuy lekk sax ak yi ñuy naan ak tey maa ngi xool sama vidéo ñu ñu yónnee ma benn ay mbaam xuux ni ñuy defaree am na benn espèce u tàngal la ilaha illallah loolu ñëpp ko war a gis am na benn espèce su tàngal boo xam ne nit ñi dañ koy lekk dafa xonq dañ lay defal lu rafet ci kaw foo ko tourné di ko jënd nekk mbaam xuux lañ koy defaree mbaam xuuxi la ñuy jël sa waay fees ko dugal ko ci ay machine dindi yàpp yi dugal ko ci ay laboratoire def ci ay couleur daggate ko def ko ci ay paquet sa waay nga ñëw rek di lekk ndeke mbaam xuux ngay lekk am na diw yoo xam ne da ngay jàpp ba pare wala nga sangu ba pare nga war a dem jàkk nga jël diw bi diw di nes nesi ndeke diw boobu ñu ngi ko defaree mbàqu jigéen yi jigéen yi bu ñu amee doom butit boobu di ci ànd moom lañ ko defaree ñu ñëw di ko diwoo ñun parce que ñoom ñoo koy defar ñun xamuñu am na diw yoo xam ne diw kopp bopp la wala diw sikkim da ngay gis imaam bi imaam ñëw sangu ba pare diw ba rafet ndeke yàmbaa la diw déggu leen diw bi tudd yàmba ah la ilaha illallah kon dégg la loolu subhana am na diw yu ñuy diw am na lekk yu ñuy lekk wallahi lépp dafa xaram mais ñun xamuñu parce que nanguwuñu def dara dara toog rek ñun daal luñ fi nekkee mooy mooy xuloo ci ay ay ay ay kenn xamul yu yu yu terre à terre bàyyi àdduna bi di dem ndeysaani Yusuf Qardaa yu nee na dama gis julli di xuloo ci photo photo dagan na wala daganul mu ne Israël mu ngi defar ay satellite mu ngi kaw asamaan di filmer dëkk jullit yëpp ñoom ñu toog fii naan photo araam na yahudi yi ñoo ngi yor ay satellite ci kaw asamaan secret jullit yëpp lañ xam moo tax gis ngeen guerre six jours guerre six jours boobu Israël doon xeex ak dëkk jullit yi six jours mu rajaxe leen pourquoi c'est parce que xam na jullit ñi fi ñu denc denc armement yi balaa ñu koy jëli mu xëy aviation mi bombardé foofu ñu denc armement yëpp dëkk jullit yi Jordanie Égypte euh, Lubnaan ak ban dëkk yu ko wër yi nga doon xeex ak moom yëpp dañoo xëy suba fekk bombardé na seen fi ñu denc seen armement yi pourquoi c'est parce que xam na seen secret yi voilà tey ñi doon wax photo araam na ñoom ñëpp seen photo yaa ngi ci internet bi koo fi wax ñu ne la moo ngi nii ah loolu loolu araamul il faut il faut il faut ñu avancer il faut ñu avancer il faut ñu dégg suñu diine tey ñii di wax araam na yëpp seen photo yaa ngi ci whatsapp yi wala wax leen ma fi kenn ku ngeen gisul photom ci whatsapp wala wala wala wala wala internet wala youtube koo kil koo cliqué léegi léegi demal google cliqué wala youtube ñu ne la moo ngi nii kii la bindal turam rek nga ne ñu ne dang indi photo bi wala nga dem facebook pourquoi démb ñu doon wax yooyu dafa araam tey jii ñu génne ko ba pare li gën a dangereux te ruslu mooy nga wax dara araam na depuis nga toog ba tey eh, déedéet eh, c'est que adduna bi daa avancé loolu mooy lan lu araam kay araam na rek voilà beneen bi mooy xoolal carte d'identité yi seen photo yi mu ngi ci wala nekku ci passeport yi permis conduire yi parce que mbirum àdduna la il faut mu nekk il faut ñu def ko yonent bi li mu tere mooy yett yett lañ ñu tere léeg-léeg baat yi yonent bi wax ko mais soo ko bëggee jël nga fili ko texte dafay dafay am problème léegi nga araamal lu yàlla daganaloon ci nit ñi mu ngi mel ne rek yàlla subhanahu wa taala fi mu wax ci alquran ci weeru koor mu ne wa in laamastumu nisa bu ngeen laalante ak jigéen ñi la laal boobu tey boo nee nii la soo laalee jigéen rek da ngay dem sa jàpp toj na problème am na foofu lams lu muy tekki ak jima sëy lay tekki dafa am baat yoo xam ne yenn saa yi yonent bi wax ko wala yàlla wax ko kenn du ko firee li ni nga ko bëgg a déggee yow wala asl baat bi moo tax souvent sunna wala borom xam-xam yi ñoo lay leeralal baat bi ne la lii la par exemple aaya bi wax ne wa atimmu siyaama ila leyl mottali leen koor ba guddi jot ginnaaw ba ngeen xëddee woor leen ba guddi ñii woor ba guddi xam ngeen fan la ñuy dog gée gée ñu ne yàlla guddi la wax mais yonent bi mooy firi guddi moo ne timis la yem wa atimmu siyaama ila leyli mu ne timis la yem ndax timis guddi jot na fala bëccëg bi tàmbalee kon kazalika nii fala guddi gi tàmbalee kazalika nii mbokk yi nu fassilu al ayat nii la ñu yàlla di leeralee aaya yi li qawmin ñeel ay nit yoo xam ne yaalamuuna xam nañ li mooy sunu dars tey ñoo ngi jéggalu njuumte yi sunu borom di leen ko jéggalu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu